liggéeykat yi euh, dañu koy jànkonteel file ci Sénégal difficulté yi nga xamante ni euh, personnel de santé bi moom la ñuy jànkonteel ci jamonoy euh, Covid 19 bile négociation yi ñoom fan lañu ci toll ak état wu Sénégal ak seen mouvement bile di ànd gësam fête du premier mai di fête du travail ñu koy amal chaque premier mai daañu ci waxtaane ak soppite yi nga xamante am na par rapport ak manifestation premier mai bi ak Covid bi Euh, euh, ñu war a yóbbuwaat ay cahier de doléance ci premier mai bile ponk yu ni mel euh, daañu ko waxtaanee ak yeneen yu soxal actualité bi ak kile di si Cissokho ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. ñu ngi lay fay soxna si. di leen sant di leen remercier tamit. Mm. si invitation bu ñu bu ngeen ñu defal. di ñaan yàlla rek li ñu tax jóg tey Euh, yàlla jàppale ñu ci. Mm. ba ñu matale kook jàmm. Mm. waaw ñu leen di euh, remercier di la remercier si sa disponibilité tey jii dinañ la laaj euh, ci seen fédération général des travailleurs du Sénégal lan moo ko tax a jóg exactement seen kuréel gi la. voilà justement. waaw question bi nga ma laaj. question bu am solo la. Mm-hmm. parce que il faut ñu comprendre ne ñun dañu bokk si benn kuréel bu tudd la fédération générale des travailleurs du Sénégal. Mm-hmm. kuréel boobu nag. dafa bare ay syndicats professionnels yu yu fa affilié mhm. mooy maanaam ay syndicats yu bare si bokk si di, ay activités yu bare am nañu syndicat hôtellerie mhm. am nañu syndicat des travailleurs des collectivités territoriales mhm. am nañu des syndicats qui sont dans l'industrie alimentaire am nañu ay syndicats yu nekk dans le domaine agricole ah am nañu syndicat santé am ñu am nañu syndicat yu nekk dans la euh, bon wax na restauration centre mm-hmm. am na ñu mm-hmm. syndicat yu nekk au niveau des transports am na nañu euh, syndicat yu nekk dans des industries extractives et minières ñu mel ni mm-hmm. Dangote ay CDK yooyu yëpp dañu bare ay syndicat professionnel yi nga xam ne ñoo nekk ci biir suñu dajaloo ci biir fédération voilà justement waaw lan moo waral loolu waaw xam nga euh, ñun central syndicale lañu ah centrale syndicale nag. ngeen boot ñu bari. syndicaliste yu syndicat yu bari secteur d' activité yu bari. voilà justement. mais mais loolu lan mooy touche originale bi maanaam euh, lan lan lay apporter maanaam fédération bi euh, lan moo ko wuutale ak syndicat bi nga xamante ne mi ngi ci biir fédération bi. voilà justement xam nga. Mhm. dañu ne euh, fédération bi boo dañu ne central syndicale. Mhm. centrale syndicale nag moo ëmb des syndicats professionnels parce que les syndicats professionnels dañu ñëw affilié wu. si centrale syndicale bi. centrale syndicale bi yaa ngi dégg ñoom dañuy am seen récépissé mener seen activité mais dañuy bokk si benn centrale syndicale. Mhm. dañuy am seen secrétaire général par exemple je donne un un, un exemple. Mm -hmm. au niveau de notre centrale. Euh, Sidia c'est le secrétaire général. Mhm. de la fédération générale des travailleurs du Sénégal. il est en même temps secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux. Mhm. ku jël ku mel ni Mansour Mansour Gaye mhm. moom c'est le secrétaire national des travailleurs de l'hôtellerie bar restaurant et salle de jeu mais il est affilié à la fédération générale des travailleurs mais mais euh, centrale syndicale bi pour lan la exactement ah mais comme nu ma la ko waxee rek xam nga une centrale syndicale moom mooy euh, moom mooy euh, moom mooy la tet waaw ñeneen ñi ñooy bras yi donc foog foog centrale bi am c'est forcé ah mais non mais attends syndicat bi c'est forcé mu bokk centrale bi. Mm, non y de des y des organisations parce que bon l'appartenance à une organisation syndicale nag dafa nekk quelque chose de libre. Mm-hmm. yow tu peux créer un mun ngeen boo am seen syndicat professionnel mais affi mun ngeen bañ a wu ci benn centrale syndicale. Mm-hmm. mais nag affilié wu. si <coughs> centrale syndicale moo ma yaakaar ne moo gën a am. moo gën am doole. moo gën a am doole. léegi nag doole boobu laa ba nga expliquer ma ko. waaw xam nga loolu nu muy demee. parce que tey dama lay wax euh, par exemple ñu ne aujourd'hui au niveau des collectivités territoriales. parce que mm. foofu laa mun a waxee. parce que mm. man fa laa nekkoon di liggéey foofu nga nekkoon. di liggéey pendant des années boo jëlee lu mel ni collectivité territoriale. Mm. tey ñi am ay. Euh, mu am euh, euh, grève au niveau des collectivités territoriales mhm. yeneen centrale yeneen organisation syndicale yi nga xam ne dañu bokk ci centrale bi mun nañu ñëw en appoint appuyer ñu yaa ngi dégg mhm. jàppale ñu pour si suñu suñu grève ci grève voilà maanaam su ngeen di manifester mu gën a bari nit gën a ëpp doole ainsi daal dooleel li nga xamante ni mooy syndicalisme mais centrale syndicale bari na tamit waaw c'est vrai que jaayante doole bi ya y en a y a avait trop au Sénégal et mm. jusqu'à présent dañu mm. bari mm-hmm. central yi ci boppam laa wax yi dañu bari mm-hmm. parce que je me rappelle lors euh, bu ñuy dem euh, central yi demoon nañu ba dépassé nañu une vingtaine mm-hmm. boo ko comparé a certains pays africains où il a deux centrales syndicales seulement nga jël le cas du Mali ay Guinée ay affaires africains yi mais fi au Sénégal il faut excusez-moi de parler comme ça il une prolifération de mm-hmm. centrales syndicales dans mm-hmm. ce pays-là. Mm-hmm. ba est-ce que liggéeykat yi bari nañ bari gu jar ñuy def centrale syndicale yu bari yooyu kooku c'est ma conviction. man personnellement. moi je suis contre parce que loolu xam lan la euh, émiettement de mouvement syndical la parce que ku xëy rek jóg créer benn centrale syndicale trois pelés deux tondus wër la. nga ne am naa centrale yore sa cartable di wër. xam wax am nañu ay centrales syndicales yoo xam ne tey. je ne veux pas waxuma ko pour faire du mal. Mhm. mais am na ay ñoo xam ne tey dañu créer syndicat pour créer syndicat. Mhm. amuñu siège amuñu dara. tey boo bu bu bi doon def ay càmbar seet nan ñan ñoo fi syndicat yoom dool den dinañ ko xam. Mhm. dañuy wër rek. amuñu siège amuñu amuñu ay nit amuñu dara. mais am na am nañu récépissé. mais lan mais lan moo tax forcément ñuy bëgg a samp syndicat xanaa dafa am lu nekk ci biir syndicat. ñoom ñoo ko xam ñun de. ñun fédération générale des travailleurs du Sénégal. ñun de ku ñu xam. defe naa ne euh, si journaliste ngeen. te xam ngeen fi dans le landerneau syndical de ce pays là. Mhm. FGTSD am na fi place am. Mhm. parce que yaakaar naa ne travailleurs yi ñun jëppiwuñu. Mhm. ni ngi béy suñu waar comme ni ñu ko war a béyee parce que ñun fépp fu ñu travailleur soxla ñu ngi taxaw te jafe naa ne tey activité syndicale bu amee fii Sénégal. FGTS defe naa ne. bokk na ci bokk na première ligne. damay ne première ligne. ñun dañu ñun euh, bañ nañ ko ba suñu devise ñëpp xam nañ ko la toujours dans le camp des travailleurs. Mm. liggéeykat yi de jéppiwuñu te boo tey boo leen defoon sondage ngeen dugg au niveau même des inspections du travail dañ leen pratiquement tous les conflits qui viennent là-bas. ay mm. yëpp FGTS moo ko fi indi. Mm. donc ñu ngi ñu suñu waar. man mun naa waxal suma suma central parce que foofu laa nekk. Mm-hmm. mun naa xam ne ñun daal ñu ngi béy suñu waar te travailleurs yi nga xam ne dañu jël seen confiance jox ñu ko. ñu ngi gis seen bopp te jéppiwuñu léegi waaw loolu xeeb ngeen central yi. non indi alliance ànd gësam exactement lu ko waral. Euh, voilà xam nga. Mhm. Euh, je profite aussi de de votre antenne. Mhm. pour euh, saluer euh, mon secrétaire général Sidya Ndiaye. Mhm. di nuyu le président de notre alliance. ànd gësam le grand maître euh, comme je l' appelle souvent. Euh, Mbalo Dia Thiam Mbalo Dia di nuyu pratiquement tous les les autres secrétaires généraux de d'organisations professionnelles. Mhm. affiliées a l'alliance. Mhm. ñoom day jaxate mon ami euh, Saliou Guèye ak ñu bëri ah dañ ñëw bokk alliance ànd ak gësam parce qu'il fallait que ñu def loolu au niveau euh, des structures de santé demoon nañu ba nga xam ne. Mhm. Euh, dañu ne woon problème mu santé yi du ko benn syndicat rek moo ko mën a régler. parce que boo jëlee. boo gisee création euh, euh, kii bi euh, nu ñu koy tuddee alliance boobu ma lay wax. ànd hmm, gësëm ànd gësëm. à un moment donné SUTSAS qu'on le veuille ou pas c'est le syndicat le plus représentatif au niveau des structures de santé dans ce pays-là. Hmm. ñun SYDIA dafa ñun au niveau du SUDTM le syndicat des travailleurs des collectivités nous nous sommes le syndicat le plus représentatif. Hmm. au niveau des collectivités territoriales. en matière de personnel de santé. dafa laajoon. bu amee yu demee noonu parce que euh, collectivité territoriale yi du dara ay démembrement état la dafa baaxoon ñoom ñu toog waxtaan ne nañu créer benn alliance pour boole suñu doole pour mun a xeex te def def na ay résultats. Mm-hmm. alliance bi ànd gësëm. ah oui ay résultats bu ñu ko nañu ne gars yi nag moom pare nañ moom ànd gësëm. ñun daal non non euh, xam nga euh, euh, peut-être que le mot. c'est le mot qui <laughs> de la république l'autre d'une rencontre nee na waaye yéen seen ànd gësëm. gësëm gësëm non <laughs> dañuy gësëm. Mhm. pour le respect des droits des travailleurs. Mhm. xam nga. Euh, xeeb ngeen yëngal da ngeen di gësam dañuy gësam rek. Hmm. pour le respect des droits des travailleurs parce que ñun loolu mooy suñu loolu la ñu sas liggéeykat. xam nga hmm. man dama yàgg di wax ay liggéeykat dama leen ne bu ñu ñëwee sama bureau di waxtaan dama leen ne. Hmm. man maay man maa leen ko wax man Moussa Sow boo leen ñëwee FGTS affilié wu. ñëw jënd carte wut di cotiser pour FGTS di jàppale seen syndicat pour mu kii. boo leen fa gisul seen bopp démissionné leen parce que xam lu tax. syndicat moo war a jëriñ liggéeykat. liggéeykat euh, euh, syndicat euh, du moins liggéeykat. Mhm. moo war a jëriñoo syndicat. mais mhm. syndicat warul jëriñoo liggéeykat. liggéeykat yaa ngi dégg. parce que loolu mais malheureusement nag dans ce pays là. Mhm. mais syndicats yi ñoo jëriñoo liggéeykat yi. liggéeykat yi mais liggéeykat yi jëriñoo ñu syndicats yi. parce que ñoom ñu ngi fii seen problème tey dama lay wax benn dama lay jox benn exemple. boo demee dans les inspections du travail de ce pays la sa yaram day daw. ndax la xam lu tax sa yaram di daw. des milliers et des milliers de travailleurs convergent vers les inspections régionales du travail dans ce pays-là. ndax parce que tout simplement mi ngi jalgati seen ay yelleef. Mhm. nii fooyee travailleurs yi te dinaa ñëw nag ci état dama lay jox benn exemple da ngay liggéeykat bu ñëw nekk ci liggéey kayam di liggéey ni xëy benn suba teel dàq ko. comme ça comme ça ba pare. moo wax la loolu euh, les la ñu si bare dama dama la wax su ma loxo su ma bat ci kaw mhm. employeurs yi fii Sénégal ñu ci bare ay hors la loi la ñu mhm. lu leen neex la ñuy def si entreprise yi jàpp doomu jaamur yi di leen liggéeyloo mhm. ba pare du ñu warloog charte réew mi li leen nga xam ne moo ñu tënk ñun ñëpp mooy code du travail mais ñaata entreprise fii Sénégal ñooy piétiner code du travail et pourtant l'État est là qui devait avoir un pouvoir coercitif pour pousser ces entre ces employeurs là à mais defuñu ko tey inspection du travail day fees del te conflit yu fa am yëpp. Mhm. quatre-vingt-dix-neuf pour cent travailleurs yi ñoo ñoo am gain de cause. ñoo am gain ñooy am dëgg te lu ci gën a metti. Mhm. tey da ngay gis liggéeykat bu liggéey ba pare gagné procès ñi dem dans toutes les juridictions au niveau du tribunal mu gagné. Mhm. ñi war ko fay xaalis ñi teg si seen tànk ba léegi duñ koy je je donne des exemples. ay cas Savana. ay ay ba dañu bare si réew mi ay liggéeykat yoo xam ne. décision de justice. jox leen. dëgg dëgg. mais duñ leen fay seen duñ leen fay seen droit mais foofu nag. Mhm. lay interpeller état. Mhm. mais dama ne ana suñu état. comment des travailleurs des sénégalais nga xam ne état bi moo war moo leen war a protéger parce que l' état la pour protéger. Mhm. no biens et nos moo ñu war a protéger su fekkee ne état bi liggéeykat yi dañuy liggéey ba pare état nu leen protégé mais dans quel pays sommes-nous. ñun man man c' est c' est un problème que je me pose tout le temps. dama ne mais yéen a ngi koy xeex mais dañ koy xeex dañ koy dañ ciy wax. en tout cas ñun FGTS dañ ci wax wax les décisions de justice le respect des décisions de justice. de, de justice parce que personne ne peut être au-dessus de la loi. mais tey da ngay ñëw gagner sa procès dem tribunal juge bi jox la raison. ñu mhm. ne dañ dañoo war a fay ñu bind def. fay leen ko par toutes les procédures. ñu ne fay leen doomu jàmbur bi wala fay leen liggéeykat bi mais ñu xëy benn suba teel teg si seen tànk di def ay appel nga dem appel gagné waat appel bi nit kii mm. mm-hmm. mais ba léegi y combien de Sénégalais qui mm-hmm. sont la qui ont gagné au Donc, niveau de toutes les juridictions mm-hmm. et qui n'arrivent pas a rentrer dans leur fonds loolu xam nga problème la te booba tamit ñun dañuy interpeller l'état du Sénégal parce état bi moo war a régler problème boobu du dëgg parce que état bi moo fi nekk tamit pour défendre citoyens yi citoyen bu nekkee si problème ñi koy jaay doole état nag kenn mënu ko jaay doole. état moom daal gis nga ni daal état dafay protéger chef d' entreprise yi plutôt que mu mm. protéger les euh, euh, travailleurs. xam nga euh, mun naa wax loolu. Mm-hmm. comme mun naa ko ba a wax mais man pour man état dafa si am responsabilité parce que état moo fi nekkal citoyen yi donc citoyen parce que tey boo fi defee jalgati boo jalgatee fii mais dañ lay tëj. Mm-hmm. boo nekkee si société respecté wuloo charte yi la warloog société bi. mais dañ lay tax te bu boobaa état du ci am dara mais yow su fekkee ne yow yaa ngi def yaa ngi jar yoon te yow sa wa sa yelleef joxuñu la ko mais ak quoi ça sert finalement. ça pose donc problème. ce n'est même pas la peine mois je dis souvent. Mm. mais ak quoi mais pour pourquoi aller même dans les juridictions pour régler des problèmes ça ne sert à du tout. lan lay jëriñ. lan lay jëriñ ban njëriñ la am amul benn njëriñ. parce que su fekkee ne da nga gagné sa ay ay kii ba pare fu kiiwul ñu la amul njëriñ. léegi seen activité euh, syndicale yi ngeen di def kan moo koy financer koppar fan lay jóge kookan la non xam nga nag euh, man dama lay wax dara. waaw nga syndicat. waaw. Hmm, dafa am lu ñuy wax la cotisation syndicale. gars di ko wax communément Tchekof. Tchekof mhm. liggéeykat bi. Mhm. chaque fin du mois day jël mille francs ci salaire am di ko cotiser le syndicat bi. Mhm. chaque mois chaque mois. mais euh, gis nga si 1000 euh, francs yooyu muy cotiser bu fekkee ne am na euh, organiser par exemple dama lay jox syndicat bi bu amee syndicat professionnel bi buy cotiser le central am chaque mois day syndicat bi day jël 60 pour cent jox ko. 40 mhm. pour cent yi moom moo koy garder. garder parce que 60 pour cent yi c'est pour permettre euh, au syndicat. c'est de fonctionner. de fonctionner ak activité ñi am seen seen activité ñi kii demee yu demee noonu. ñun en tout cas man ñun. ñun la noonu la ñuy fonctionner ba pare boole ci euh, dañu am suñu siège dañ koy fay mm-hmm. yaa ngi dégg dañuy fay wifi di fay euh, euh, on a des charges quoi en moo tax ma laaj leen fu ngeen di jëlee koppar ah mais koppar yooyu. ni nga koy mm. jëlee. ci ci ci liggéeykat yi ci liggéeykat yi parce que nous avons des des des centaines des milliers de travail qui coûtent. ku nekk joxe 1000 francs c'est de l'argent. c'est de l'argent. si ngeen def seen la ñuy def seen activité mais parfois état bi du leen joxe koppar. non ah, ah. état bi état euh, bi chaque année. waaw euh, ça il faut le dire chaque année dañuy subventionner les organisations syndicales. ci naka ah dañu leen di subventionner. di leen jox euh, mais mais l'État subventionne même les yan du journaliste état mi ngi leen di jox ay subventions yan. Hmm, ñan leen wax dama xam yéen seen fii moom man maay laaj tey léegi. yéen yéen état bi da leen di jox xaalis est-ce que parfois du nekk subvention boobu état bi di joxe mooy indi jafe-jafe wala indi euh, ku nekk bëgg a ñëw rek tëral benn. syndicat benn day kumba day jóge fee am ñetti nit ñëw def syndicat. mais nag loolu nag. est-ce que xam nga mm-hmm, état mm-hmm. am na ay moyens pour des moyens de contrôle. Mm-hmm. xam nga man Moussa Cissokho. man. am benn benn nit ñaari nit ñëw créer syndicat mais état mun na contrôler lu xam kii ñan ñan syndicat moom moo kii xam nga loolu dafa yomb xam nga am récépissé yow bu la neexoon tey ndey kumba mhm. nga dem rek def eh, ay texte def statut règlement intérieur ba procès verbal de assemblée générale nga dem déposer ko li jox la récépissé mhm. yow récépissé bi ñu ñu si bare nag récépissé rek la ñoom dugal ko seen poche ba pare fin waaw di mbele mbele rek te amuñu ça c'est clair mais léegi naka gisee euh, le fait que njiitu réewu Sénégal jël souvent ñiy jiite centrale syndicale yi di leen jox ay post comme euh, di leen tab ca conseil économique social environnemental ba tax na ñu bëri sax déggatuñ leen parce que nu ñu daan déggee ay ñoom moo di Guiro ay ñoom Cheikh Diop dafa wàññeeku ni ñu doon fësee ci terrain bi ci xeex bi dafa wàññeeku yow loolu ban jàngat nga ci am. waaw xam nga da nga cité ay tur. waaw mais kenn du cité Sidy moo di Guiro. waaw waaw xam nga man jiite ay centrales syndicales yu mag kenn déggu xam nga man. Hmm. man dama dul tooñ. parce que hmm. man bëgguma ku ma tooñ. Hmm. xam nga da nga benn question elle est très pertinente dañu ne ay centrales syndicales yu nekk si kuréel yooyu. man mii man je suis membre du haut conseil du dialogue social je siège au dialogue social. au dialogue social waaw Sidia mais nous nous sommes là-bas. au prorata de la représentativité syndicale kon kay kon kay Macky jënd na syndicaliste yëpp non non ma kay ma nettali la. ah kay kon si Sidya Ndiaye dafay xumbal nii rek ah. moom dafa ah, ëpp. Ah. jënd kenn du ko wax sax Sidya Ndiaye kon dafay xumbal nii rek. Sidya kenn hmm. yaakaar naa ne. li tax kay ku ne bëgg a teg syndicat waaye déglu ma rek di nga di nga ma déglu de. <laughs> gis nga yaakaar naa ne tey fii Sénégal tey. Mhm. kuy wax syndicat. boo ba boo bàyyee side rek waxatuloo syndicat man euh, Sidia hmm. dañuy ànd si ngor rek man newuma fii pour di ko di dafay éloge am hmm. mais moom si boppam moo wone loo xam moo tax travailleurs yi wóolu ko waaw c'est vrai moom ñu ngi koy dégg moom moom mu ngi yëngal gësam ba léegi waaw parce que Sidia hmm, c'est quelqu'un qui est incorruptible kenn mënu ko corrompre man maa la wax lii. ak poste bi ñu ko jox. ma ne faalewul yooyu toppatawul sax poste yooyu. mais kon lu tax mu accepté ko. xam lu tax mu accepté ko. waaw parce que c'est au prorata de la représentativité syndicale dañu ne. Mhm. bu ñu demee élection. Mhm. ñii les cinq premières premières centrales syndicales. Mhm. dañu am représentant sur kuréel yooyu nous sommes des sénégalais mais bu ñu invité man. lu tax man ma dem au conseil du dialogue social c'est parce que man ma centrale syndicale est cinquième moo tax ma dem fa. Hmm. liggéeykat yi ñoo ma fa yóbbu. yaa ngi dégg yow loo yow looy def au conseil du dialogue social yow. yow ah, Moussa Sissoko. mais ban njëriñ nga fa am. mais un travail extraordinaire. Comme, avec comme une très grande équipe. comme Moi, je, mais on règle des conflits et puis je fais partie. Mhm. man euh, non au conseil. waay ouais, ouais. innocence réglé wu fi dara. mais oh, ne hmm? au contraire cette femme là.

ah si au conseil du dialogue social. waaw wax ma ñaari ñaari wala ñetti dossier yu yu sa yoo xam ne waaye ma ne innocence réglé na ko wax na ko. xam nga dans le domaine agricole. waaw on a été à la SCL la société de culture légumière. Mhm. on a été au niveau des GDS des grands domaines du Sénégal. Mhm. c'est des sociétés qui emploient plus de trois mille et quelques agents. ay société de culture légumière. Mhm. nga dem Dangote Ciment Sénégal. genre dafa bare ay sociétés yoo xam ne tey Sénégal fii. ah tey Sénégal. dañu jël seen dossier jaarale ko si au conseil du dialogue social ñu régler conflit yi billaahi wallahi taalay foofu lañ ñu régler ko régler ko liggéeykat yi am gain de cause dañ doon kaas ñu am ko ma ne liggéeykat yi am gain de cause ma ne la demal euh, ma ne. mais suñu évaluer pourcentage dañ naan innocence liggéeyul dara. mais amul dañuy wax sax au conseil du dialogue social amul njëriñ. mais ku wax ne amul njëriñ c'est parce que. yow ban njëriñ la au conseil am mais ku wax ne amul njëriñ. est-ce que du du benn déglu ma rek kii de plus nii rek. non non non waaw pour. xam nga ñu si bare fii mhm. Sénégal. Mhm. le même les hommes politiques ñu le même les activistes là ñu bare ñuy wax. Mhm. dinañu citer ay institutions yu bare. Mhm. mais ñu si bari du ñu cité au conseil. parce que xam nañu lu tax. ah man de syndicaliste yi ma invité fii yëpp ñu toog fii nga toog. waaw bi ma leen laajee ci au conseil bi. waaw maanaam quatre-vingt-dix pour cent yëpp nee nañ amul. mais mais innocence Tab Ndiaye liggéeyul. mais ñu ko wax nag. waaw waxuñu dëgg non non déglu ma mm. ñu ko wax. ñu ko wax non xam nga yu mel noonu nag fan lay gën a neexee. Mhm. xam nga débat la c'est des débats. Mhm. xam nga toog rek ne liggéeyu fi dara. te yow amuloo dara looy teg xam nga c'est des débats techniques. mais yow Moussa tegal ma dara ci au conseil. mais yow yow ban njëriñ nga fa am. mais ma ngi lay. wax laa wax ban njëriñ nga fa liggéey liggéeykat yi comme que yow membre nga ci au conseil mais man dem la ne moi je suis membre du haut conseil du dialogue social. waaw je fais partie de la commission formation et sensibilisation. man j'ai fait le tour du Sénégal. Mhm. pour aller sensibiliser les travailleurs sur le dialogue social. dem di former ay liggéeykat sur seen ay yelleef. ce que nous faisons au, niveau. ba léegi ay ay ateliers nga ah pas des ateliers. ak ñun ñooy déglu ma ñun yooyu intéressé wuñu au conseil laa la wax. Mhm. c'est une euh, xam nga au conseil c'est une institution tripartite. Mhm. il y a dix travail euh, dix membres du gouvernement. qui mhm. sont dans le haut conseil du dialogue social. il y a dix membres du patronat. il y a dix membres des travailleurs. choisis parmi les organisations les plus représentatives dans ce pays-là. tey bu ñu toogee fii ay nit ñëw xaw nga man fekkeewu ma ko buñ ñu koy wax. Mhm. mais débat la waroon nekk xam nga man am naa ay man am naa ay euh, ay documents yoo xam ne. qui mhm. attestent que le haut conseil du dialogue social est en de faire un excellent travail et te naa la wax dara. Mhm. même. dans la sous-région moi j'ai été en Côte en, euh, en Mauritanie ils s'inspirent du modèle sénégalais. en ah Côte d'Ivoire waaw. pourtant au conseil bi ñu koy teg c'était pour le pacte social pacte bi liggéeykat yi xotti nañ koy yàgg na mais mais gis nga sànni ko fële. waaye déglu ma xam nga gis nga soxna si. kon innocence kay échoué na. mais euh, au contraire. mais bu échoué pacte bi kenn du ko déchiré. mais kan moo déchiré pacte bi. ah non personne n'a décidé. liggéeykat yaa ngi si di manifester tout le temps mais non foo kooku c' est dans tous les pays du monde dans quel pays au monde nga gisul. liggéeykat bu manifester mais manifestation bañ am. ma non non mais attendez. Mm pas parce que euh, problème rek ñu ne ay euh, manifestation du am gis nga. Mhm. li ma lay wax ni man je ne suis pas là pour défendre innocence parce que le Haut Conseil du dialogue social c'est pour le Sénégal c'est une institution mhm. donc man défendre ma Innocence Ntap Ndiaye défendre ma kenn. je défends cette institution là. non du Innocence Ntap Ndiaye moo ñu. intéresse mais dañu gis ni. waaw déglu ma rek dama dama lay leeral. man défendre ma parce que man dama fa nekk ak ay nit. de sénégalais yoo xam ne qui ont beaucoup de mérite. des cadres de haut niveau nekk au niveau du haut conseil du dialogue social ñooñu dara yóbbu leen fa lu dul seen euh, loo xam ne day avancer loo seen réew te ni ngi si béy seen waar au niveau du conseil du dialogue te lu ma lay wax nii madame xaaral ba rap rap xam nga génne nañu premier rapport doy seen waar wala yéen a ngi fay am seeni i koppar. ban koppar foofu amuñu fa dara. fayuñu la dara yow foofu non non nga xam nga au conseil Moussa kenn du la fay ci au conseil. xam nga xam nga lan la femme. jeton de présence. xam nga ko jeton de président xam nga ko. mooy la ah, déet man xaw ma ko auditeurs yi xamuñ ko. xam luy jeton de président mooy boo amee activité boo amee session. nga dem ñu jox la jeton de président loolu laa fam de man aw ma fa bureau. waaye ma ne per diem laa fa am comme ngeen di amee per diem yéen après ngeen di naan aucun say kii mais xam nga am na loo xam ne dafa yenuwul maanaa mhm. te gis nga damay woo nit yi xam nga tamit bu ñu nekkee réew si mhm. réew mhm. bu dara amee ne nit yi dem à l'information la vraie di dem wuti luy information bu dëgg bi. mais moo tax ñu lay laaj. yaa ngi dëgg non non dama lay wax rek. xam mhm. nga xam nga nga ne am na ñoo xam ne xam nga am ñëw toog rek ne. au conseil defu fi dara baaxul. xam nga loolu c'est trop facile parfois nga invité syndicaliste. laaj ko loo xalaat ci liggéeyu. waaw mais mu ne au conseil bi nañ droit ñoom ne amul njëriñ parce que gisuñ si seen bopp ma ne bu mais bu dee bu dee liggéeykat bi gisul boppam ci o conseil bi mais am na droit ne conseil bi amul njëriñ liggéeykat yi liggéeykat yi Sénégal yu bare yu ma la wax nii. waaw yu si bare. bañ tegee haut conseil bi ci la ñaxtu bi gënee tar sax tey jii. waaye ma ne ñaxtu te c'était pour wàññi ko mais ça n'a mais gis nga ñaxtu bi. Mm. attends attends encore une fois il faut aussi qu'on détermine le rôles. o mm-hmm. conseil du dialogue social. il faut ngeen xam ay mission ngeen xam fu mu fu mu war a egg ak fu mu war a yem. ñaxtu Sénégal fii dañ ko fi mu sa fekk du haut conseil bañ a haut conseil ñaxtu dafa yàgg am. Mm-hmm. mais dama lay wax ne haut conseil du dialogue social réglé na fi yu bare bare bare bare dans ce pays là. Mm-hmm. peut-être jarul def ay publicité parce que bon des fois sax man je reproche même ah man dama ko dama leen koy wax des ma ne mm-hmm. leen euh, man dama bëggoon ñuy communiquer sur tout ce que nous faisons. parce que apparemment il y a des Sénégalais qui n'ont rien compris qui yaakaar ne kii c'est une institution de trop. ça n'a rien à voir. le o conseil mène son bonhomme de chemin te ñun nous n'avons pas. bokkul ak yeneen institution budgétivore yi ñoom seen bokkuñu mais apparemment dafa mel ni Macky Sall jënd na syndicaliste yëpp de parce que bu jëlee njiitu central yi jox leen ay poste conseiller jox leen ay oto jox leen ay ban ban ah, ban ñan la jënd ah, ah Mody Guiro kenn déggatu man xam nga man mënu ma wax affaire Mody Guiro parce que bokk ak moom central Cheikh Diop mooy loolu man xaw ma leen xam nga lu tax Sidya Ndiaye bokk na ci jox nañ yàlla tere mais parfois yow sénégalais nga sénégalaise nga xam nga fii nga dëkk si réew mi. waaw tu sais que Sidia il est incorruptible. Hmm. Sidia yooyu yëngalu ko. kon li ñu ko jox yëpp terewul mu ngi yëngal ma yow lan ko jox. Hmm. mais loolu daf ko yëngal Sidia. Hmm. mais Sidia attendez il faut qu'on comprenne une chose Sidia c'est un cadre de niveau. c'est pas n'importe qui. bi nga xam ne ay bassesse yooyu dina ci dugg Sidia moom moo moom rek ngay gis. fii Sénégal moom toppatawul affaire yi ndomb tànk yooyu yooyu c'est le cadet de ses soucis ñun nii nekk ak moom ñu ko ñu xam Sidia. xamal ne yooyu affaire yu ndomb tànk yooyu tegu ko sax si boppam intéressé wu ko. d'accord liggéey kat rek moo tax mu jóg. moom moo ko tax a jóg loolu c'est clair. voilà Sénégal yoo xam nañ ko ñu ñëw ci euh, temps yi gis nañ ngeen di amal ay préavis de grève di def ay conférence de presse exactement lan mooy seen problème lan ngeen bëgg. xam nga dama lay wax gis nga il faut qu'on revienne. Mhm. su préavis préavis de grève. préavis de grève xam nga lan mooy euh, la philosophie d'un d'un préavis de grève. Mhm. bu ñu nee nga tey. boo amee loola naqari mhm. nga def sa préavis de grève da koy déposer au niveau de l'inspection du travail ou bien au niveau de la direction générale du travail mhm. et de la sécurité sociale mhm. ñooñu bu ñu jotee kii bi dañuy amplier préavis bi dañ koy dañ koy jox sa euh, ki nga ko seqal ne ko ah syndicat sangam de bind na def préavis bi xam nga préavis bi day dem pour un mois waaw yow durant tout la période la bu ñu déposé. Mm-hmm. man dama yaakaaroon ne quelqu'un qui est responsable bu ñu déposer préavis au niveau de ta société mais je pense que ton premier réflexe. Mm-hmm. moo doon nga woo ki nga seqal yaa ngi dégg. Mm-hmm. nga woo ki nga seqal ne ko ah déposé nañu déposé ngeen préavis. mais les griefs qui vous poussent à à à faire à partir en grève lii la lii la nañu toog ñu waxtaan. loolu la ñuy waxee anticiper sur des conflits mm mais je pense que en management un bon manager dafa war a xam loolu situation bu amee ay travailleurs déposé préavis mais woo leen ngeen waxtaan mm-hmm. mais ñi fay safara bi balaa muy egg balaa muy sore mais yenn na ngeen di bàyyi mm-hmm. ba préavis bi jeex ba nit yi dem grève nit yi fii coow après ngeen bugg a ñëw nag bugg a kii fekk na c'est déjà trop tard or tu vous pouviez anticiper sur le conflit. mais loolu waxal état bi rek. non gis nga état bi non non da ngay pointé directement état bi wala Macky Sall wala nga pointé seen ministre Mariama Sarr ah ma ne waaw. gis nga état bi kenn du ko raxas ba mu set parce que état bi. Mhm. responsabilité bi dafa incombe à l' état. Mhm. il faut qu' on ait le courage de le dire ma ne ma ne mais. ma ne xam nga dama rek droit au but ne état bi dafa tànqam. dafa waaw ma ne man dama la ne. waaw bu dee tamit da nga bokk APR nga wax ñu. <laughs> xam nga non mais attends nag naa la wax benn affaire nag. Ah. Euh, euh, ragal <laughs> Macky ah. ah. j'ai beaucoup de respect pour le président de la République de mon pays. Mm-hmm. parce que Macky Sall il incarne la première institution de ce pays-là. Mm-hmm. je le respecte pour ça mais Macky Sall aussi ñun ay citoyens la ñu sommes pas des sujets. Mm-hmm. xam nga ñun citoyens la ñu ñun Macky Sall ñun ñoo ko fu mu nekk nii. Mm-hmm. sénégalais ñun ñoo ko fa teg. waaw donc Macky Sall moom mooy ñun voilà c'est le contraire c'est ñun ñooy patron c'est le contraire justement qui devait se faire exactement Macky Sall moom moo war a ñëw daw euh, ñëw di ñu ne moo war a régler problème yi moo tax ma ne la yow mieux vaut au lieu que ngay tourner autour du pot mais nga ne ma gisee ma tourner autour nga ne Macky Sall taxawal su suñuy jafe-jafe bàyyi tànkam lu bi mais soxna Kumba man fu ma fu ma juddoo waaw fu ma bokk. waaw ñooñu xamuñu tourner autour du pot. waaw man doomu làkkat la. léegi lan ngeen man bambara pur la man ay affaire yi tourner autour du pot dama ko xam. <laughs> man amul doomu aadama. Mhm. buy taxaw si àdduna. Mhm. te ñoom ñu ma la wax lu ma la wax. si respect nag ñëpp laa may cër. man damay maye cër. parce que du ma dinaa la wax lu may dëgg mais du la saaga du ma la wax kii mhm. mais su dëgg amee daal dañ koy wax rek mu jeex voilà man du ma du ma du ma manqué respect parce que yarewuñu ma loolu moo tax ngeen déposé préavis de grève lu ngeen bëgg exactement foofan la mais xam nga mm. la première des choses. lan mooy seeni jafe-jafe yéen waa FGTS waa ànd gësëm ànd moo wax la moo wax la gis nga ñun sax benn benn cas rek si si yeneen cas yi point yi war naa tax ñu dem grève mm-hmm. mooy la mooy la prime Covid mm-hmm. mooy prime boobu c'est intéressant ni jagleel les mm-hmm. travailleurs des structures de santé de ce pays là tu sais ce qui s'est passé mais dañu fay une partie dañu fay travailleur état bi yëpp fay une une petite partie benn parti bu ndaw bu infime travailleur collectivité territoriale mmh. mais depuis lors ñoom benn liggéeykat gox-goxaan yi jotul prime Covid bi nga yaakaar ne loolu c'est pas de la discrimination prime Covid bi ñaata la woon mais cinquante mille francs cinquante mille non maanaam ñaata milliards lañ dugal ci seen secteur bon ñoom man bon je ne peux pas savoir le mais daal mais là xam nga xam nga la prime Covid mhm. dañ ko waroon allouer à tous les travailleurs qui ex qui exercent dans les structures de santé mhm. les collectivités territoriales du daay démembrement état la mhm. mais ñiy liggéey dans les dans les euh, dans les centres de santé et postes de santé ñooñu ils n'ont pas droit à la prime de Covid Covid ñoom dañ ko xam nga am nañu ci droit mais lu tax ñuy fay les agents de l'État di leen bàyyi ñoom fay benn parti rek bàyyi ñeneen ñi. Mm. kooku teguñu ko fenn kooku c'est de la discrimination mais nous sommes sénégalais et dans un pays. Mm. de droit les sénégalais les tous tous les citoyens doivent avoir le même droit. te prime bi cinquante mille francs. par par mois par travail xaw ma fay nañu. une partie xaw quatre ou cinq mois. Mm. mais ñun. Mm-hmm. dafa am parmi les travers des collectivités territoriales ñu am ñu ñu jot deux mois xaw ma trois mois mais ñeneen ñi le gros du lot. Mmh. mais jotuñu mais loolu fan lañ explication la ministre bi joxe mais non xam nga euh, man je ne peux pas dans le secret des dieux man lenn rek laa mun wax. Mhm. man explication may joxe dama ne c'est de la discrimination c'est une injustice qu'il faut corriger c'est aussi simple que ça amul leneen. injustice la bañ a metti mais tamit mhm. si si si si jamonoy Covid bi gis nañ ni euh, personnel de santé bi ñu ngi am ay jafe-jafe yan jafe-jafe la personnel de santé bi di am. waaw xam nga euh, personnel de santé bi waxoon nañ ko mooy seen euh, jafe-jafe ñu am. moo mhm. doon commencer par. Mhm. par seen. seen kii yi ñu leen waroon jox euh, seen jumtukaay. Mhm. protection yi waaye équipement xaw ma EPI yi la tudd. Mhm. parce que moi je suis pas dans dans le. dans le la, santé. Mhm. mais xam naa ne toutes les revendications yu ñu posé sur la table c' étaient des revendications valables yaa ngi parce que vraiment boo ko seetloo au fond gis nga personnel santé bi joxuñu leen vraiment seen. ak seen ak joxuñu leen ko. surtout ci Covid si Covid bi joxuñu leen seen ak ni ngi leen di seetaan te dafa jaaduwul dans un pays. bi nga xam ne qui est confronté à cette pandémie là ni jël lu mel ni conf euh, euh, personnel de santé di leen di leen néewal di wala di leen néewal doole. am ñoon pour ñu jotoon seen xaalis sax problème mais problème la seen i payoor pas bien. Mhm. et je pense que euh, il bon aussi il bon quand que ñu euh, je que le président de la République. Mhm. doit être informé de cet état de fait mu xam ne réew mi. Mhm. ñun ñëpp ñoo ko bokk. te réew d'habitude luy indi ay problème lu koy taal mooy yu demee nii. parce que sénégalais yi ñoom ñëpp bu ñu bokkee ay droit da nga war a respecter ñëpp seen droit mais doo ku du am kumba ndey kumba am ndey kumba amul ndey mais loolu la ñu def ci covid bi mais ce qui fait mal à beaucoup de travers te aujourd'hui mhm. si on n'y prend pas garde d'ici quelque temps les gens vont aller au bout hein cette grève là au bout mooy dañuy dem grève on va fermer toutes les structures de santé de ce pays là en tout cas nous au niveau des collectivités territoriales mhm. mais nos mhm. bi vraiment on va parce que tamit. bu dee fayuñ gars personnel de santé bi seen xaalis. waaw dañuy tëj et structuré. dañ koy tëj pourquoi duñ ko tëj parce que xam nga lu tax ko tëj parce que ça c'est c'est discriminant ça c'est pas bien ay nit di liggéey di daan seen doole ngay jël non seulement c'est dis mais c'est frustrant yow da ngay nekk ci benn centre de santé wala poste de santé di liggéey ak un travailleur euh, de l'État. moom muy fayeku prime am yow doo fayeku te bu faites le même travail ça c'est pas frustrant mais mettez-vous il faut qu'on se mette à la place de ces gens-là mais liggéeykat yi bu ñu weesoo sax personnel de santé ak Covid 19 liggéeykat yi tamit ñu nekk ci yeneen secteur yi seen jafe-jafe bari na ak Covid 19 bi. waaw loo ci mën a wax par rapport a ça. bon parce que ñu euh, bëri ñàkk nañ seen liggéey. ñu bëri dem nañ chômage technique. ñu bari xaaj nañ seen salaire. ainsi de suite. xam nga loolu aussi point bu nga xam ne la bu ma bëggoon mettre l'accent la. d'ailleurs ñun au niveau de la fédération générale des travailleurs du Sénégal FGTS ni ngi toog bëgg si gëstu pour wax si. Mhm. parce que tey euh, c'est vrai que dafa am benn pandémie bu am. pandémie bu mu ñëwee. Mhm. dafa am ay euh, dégâts collatéraux mooy maanaam ay liggéeykat yu nekk dans certains secteurs yu mel ni secteur de l'hôtellerie ñu si bëree sax. Mhm. hôtellerie la ils ont perdu pratiquement leur emploi. ou bien ñu si perdul seen emploi pratiquement ils étaient d'accord à ce qu'on leur paye la moitié de leur salaire. Mm. ñu bare perdre nañ seen emploi. maa ngi dégg état bi nee na ils sont en train de kii pour l'employabilité des jeunes mais moi j'applaudis ah. ñun FGTS nous applaudissons mais dañu ne ñun FGTS. Mm-hmm. c'est vrai il faut créer des emplois mais les emplois qui sont perdus là. Mm-hmm. restaurer aussi la dignité de ces gens là. Mm. durant ces manifestations là qui se sont passées récemment au Sénégal les manifestations malheureuses la. Mhm. ñi doon nekk ci total yi Auchan voilà mhm. di toj ay Auchan. di toj ay matériels yoo xam ne moi je damay citer exemple benn société boo xam ne mu ngi tudd Smart City. Mhm. booy mooy ñi yore affaire stationnement yi nekk si kii bi le c'est un Sénégalais. qui a investi beaucoup d'argent dem jënd ay orodateur mm. au niveau de la kii des du matériel de de de dernier de mm-hmm. haut niveau indi ko ñu implanté ko dans tous les presque artères su Dakar yëpp mm-hmm. mu am ay centaines de sénégalais yu liggéey manifestation yi am ñi dem toj yooyu mm-hmm. mais xam nga loolu bu ñu ko tojee mais dafay ña fa doon liggéey ña fa doon liggéey dem chômage mais waa fu mu nekk nii moo tax même ñun euh, parce que les travailleurs qui sont là-bas sont affiliés euh, à la FGTS nous-mêmes nous avons pris sur nous d'écrire au président de la République pour que au moins cette injustice-là soit réglée pour permettre à ces jeunes travailleurs sénégalais là ñu doon liggéey si société boobu au moins état bi mun financer pour ñu delloowaat ordonnateur yi pour mm. xale yi mun a conserver seen emploi yaa ngi dégg te bare na fi. nga xool moo nekk loo xam dafay dafay dafa yokk ci xar mi karaw. voilà parce que dañoo amoon problème mu emploi. voilà am ñu gën a ñi amoon as tuut seen. emploi ñu yàqal leen ko c'est là nag où il faut nouvelle conscience citoyenne. Mhm. parce que loolu teguñu ko fenn. man ñun FGTS. Mhm. loolu dañ koy dénoncer jusqu'à la dernière énergie. Mhm. parce que réew mi nag ñoo ko bokk. réew mi waruñu ko fooyee. gis nga. di mer di oh, toj ay entreprises waaw déglu ma gis nga di toj ay gis nga seen problème politique nañ ko régler politiquement mais événement politique am ngay dem di toj ay feu di toj ay lampe di toj ay société di toj ay station dem di attaquer ay ay ay maison de presse teguñu ko fenn loolu il faut qu'on arrête et l'État doit sévir sous ce rapport là mm -hmm. moi je suis en phase il faut que l'État sévisse est-ce que yéen a ngi ciy xeex pour euh, liggéey kat yi ñàkk seen liggéey ñu man leen mais loolu laa lay wax léegi dama mm-hmm. man dama ne. Mm-hmm. personnellement ñun. Mm-hmm. on va interpeller le président de la république. c' est vrai que nous applaudissons pour euh, l' des jeunes. pour ay liggéeykat yi parce que réew liggéey moo ko yor. parce que un pays un pays ne peut pas se développer su fekkee ne le taux de chômage dafa bare. mais tey su fekkee ne yàlla dimbali nañu. ba li ñu euh, commencé nii ñu permettre à beaucoup de jeunes sénégalais de de de trouver un emploi. c'est bien nous applaudissons mais liggéeykat yi nekk fii tey nga xam ne dañu perdre seen emploi ñooñu tamit état bi war na leen gëstu na leen gëstu seet mm. tamit parce que ñoom tamit c'est des milliers et des milliers de pères et mères de famille yoo xam ne tey ñu ngi fii ñàkk nañ seen liggéey ñàkk nañ seen bon c'est pas de leur faute ils n'ont pas été licenciés c'est une pandémie qui est mm, venue bon les sociétés sont devenues fragiles voilà leen mais état bi tamit dafa war a recenser jéem a seet nu ñuy régler problème bi. bala muy lancer bi ñu naan day wutal ñeneen liggéey. waaw dama dafa def il faut mm. commencer d'abord par l'existant. il y a des gens qui étaient là. qui qui perdu leur emploi. Mm-hmm. il faut régler d'abord ces problèmes là d'abord. Mm-hmm. après nag ñeneen ñi ñëw ñi ñëw euh, dugg ci marché. dugg ci euh, seen plan d'action prochain prochain plan d'action. Mm. lan la exactement naka ngeen fas yéenee def. Euh, bon. da ngeen di grève. non xam nga après bi da ngeen di grève lu ngeen di def tey dinaa la wax mhm. euh, peut-être euh, c'est par effraction laa koy gis nga man. Mhm. dama dama bokk si syndicaliste yu nga xam ne parce que ñun FGTS. Mhm. syndicalisme de haut niveau la def. ñun dañu bokk yaa ngi tagg seen bopp de. ñun de haut niveau ñun non non. léegi ñan ñoo nekk bas niveau <laughs> <laughs> <laughs> waaw comme que yéen waa FGTS. E xam nga ñun ñun ànd gësam ñun xam nga ñun ñun au niveau la xam nga ñun foofu. léegi bas niveau bi ñun euh, man du ma wax man du ma tudd kenn. Ah. man dama ne ñun daal suñu bopp laa xam. man mm-hmm. man sama bopp laa xam. Mm-hmm. munu ma xam suma gént bu ma xam su géntu morom. waaw yéen daal au niveau ngeen. ñun au niveau la ñu parce que ñun. Mm-hmm. dañu dañu nekk dans la pro prospection et puis dañu dañu dañu bokk si ñoo xam ne dañuy euh, dañuy dañuy gëstu si yu bare. Mm. di toog di ko càmbar parce que dañu bokk nag si réew mi. yéen a ngi liggéey daal dañuy liggéey et puis bokk si réew mi dañu bëgg sax. Mm-hmm. di ñun dañuy def souvent des contributions pour appuyer l' état parce que état bi ñun ñëpp ñoo ko moom a ah. mm-hmm. état bi c' est pas Macky ñun ñëpp ñun nous sommes des partenaires. Mm-hmm. ñun ñëpp dañu war a jàpp si yoo xam ne dafa war a yóbbu yokk réew mi yóbbu ko kanam loolu mooy rôle syndicat gis nga syndicalisme de biceps la dafa révolu c'est un syndicalisme de développement. Uh-huh. syndicats yi dañuy dem bay am ay projets yoo xam ne dañuy permettre sax ay liggéeykat. Uh-huh. ñi am seen ay ay entreprises yooyu yëpp syndicat rôle am la c'est pour des conquêtes sociales. Uh-huh. c'est pas pour brimer moi je fais partie des syndicalistes dans ce pays là qui ne croient pas trop aux grèves là xam nga lu tax. xam nga grève la dama ne qui gagne qui profite de la grève personne. c'est pas l'État c'est pas les employeurs c'est pas les travailleurs personne ne profite de la grève. donc balaa ñuy egg ci loolu moi pense que il faut faire l'économie de ces crises là toog waxtaan parce que waxtaan. kon yéen amoo leen plan d'action. si on a un plan d'action. nous avons un plan d'action sur And et nous avons un autre plan d'action. Ah qui est très important. c'est sur la fonction publique locale. Mhm. Mhm. je suis un pur produit des collectivités territoriales. j'ai fait trente-cinq ans à la ville de Dakar. Mhm. ñun liggéey nañ fa mais jusqu'à présent les travers des collectivités territoriales. ñu ngi mm. xaar seen fonction publique locale seen fonction publique locale. fu mu nekk nii nous avons terminé pratiquement il nous reste qu'un seul décret mais décret boobu ba léegi signé wuñu ko te y a un ultimatum on interpelle le chef de l'État mu jàppale nu ñu signer ce décret là qui fixe les euh, euh, mooy permettre kii euh, euh, pour les effectifs et la masse salariale des des collectivités territoriales du Sénégal. Mm. boobu rek moo ñu desee pour que liggéeykat gox goxaan yi am seen statut bu clair ah. bu bu ñu kii ñun daal loolu mooy suñu problème. Mm. actuellement au niveau voilà au niveau des collectivités. d'accord euh, fête du travail samedi prochain la ni ngi ni samedi prochain mu nekk premier mai. Mm-hmm. Euh, mu nekk jour bu am solo ci képp koo xamante ni yaa ngi liggéey euh, gis nañ ni daaw euh, manifestation amul comme ni mu daan amee ndax Covid 19 bi. Euh, ren tamit du am mais dina am remise des cahiers de doléances lan lan mooy si seen xalaat waa FGTS waaw ñun euh, yaakaar nañ dañu bokk si ñoo xam ne dañu mhm. ne mhm. Euh, ren aussi mhm. lu amoon daaw mooy amati ren rek parce que il faut pas que les gens l'oublient Sénégal ba fu ñu toll nii mbas bi jógewu fi la pandémie est là il faut que les Sénégalais prennent conscience de cela te ñuy def nank feebar baa ngi fi de ku yaakaar ne feebar amu fi. Mhm. Ah, da ngay nax sa bopp. Mhm. donc ñun on considère que euh, on considère que ce mhm. qu'on doit faire. mooy nañu euh, comme ni ñu ko doon defee chaque année. dem déposer cahier de doléance les doléances ah les mêmes doléances qui mm, reviennent chacun nee nañ même euh, même chose ñuy euh, ñëw euh, def ñu génnee ñu def ko ci mbalit bi ci palais bi waaw mais xam nga moo moo tax ma ne la léegi nag quand même il faut quand même il faut il faut changer de paradigme il faut changer de paradigme voilà affaire manif ak cahier de doléances surtout c' là où je voulais en venir il faut changer de paradigme mm-hmm. il faut que les gens comprennent que on ne peut pas revenir chaque année avec les mêmes doléances. Même parce que quand même il faut faire un monitoring même de ces doléances là ñu mmh, xool. Mmh. lan lan la war a def. Mmh. ah gis nga état état mënul régler lépp en même temps. mais quand même il faut que état bi tamit am agenda. centrale syndicale yi am agenda. ni xam ñuy liggéey régler problème yi. yaa ngi dégg en en parfaite intelligence nag moi je suis. Vraiment, des fois, euh, quand j'entends dire, oui, on, euh, parce que les, les centrales syndicales, hein, euh, généralement, ils, ils, avec les mêmes, euh, les mêmes doléances, hein, mm -hmm. des doléances qui datent de l'époque euh, euh, coloniale, là, aussi. Mm -hmm. donc man je pense que il faut que. ñoom tamit xool changer beneen indi lu bees un changement de paradigme. waaw indi lu bees ñu xool leneen lu bees quoi. nan ngeen mën si. voilà euh, kaas seen temps bi pratiquement jeex na. juste hmm. peut-être une minute moo ñu dese. naka nga euh, gisee euh, âge de la retraite bu ñu jëlee soixante yóbbu ko soixante cinq ans naka la ñuy yokkee ay âge de la retraite si dëkk boo xamante ni ndaw yi amuñ xëy. yow ban jàng nga ci am juste une minute ñu <laughs> tàggatoo. waaw mais xam nga la euh, xam nga man euh, fii au Sénégal nag. Mm. malheureusement. Euh, mm-hmm. ñun on a une mauvaise conception de la retraite. waaw oui. waaw wuu. Mm-hmm. fii Sénégal moom ils ont une mm-hmm. mauvaise conception de la retraite. parce que Sénégal rek ngay gis nit am 60 ans ñu ne na. dafa war a xam nga fii Sénégal. remarqué wuloo benn affaire. même dans nos sociétés là ku dem retraite xam lu ñu lay jëkk jox cadeau. Mhm. ay satala. ay satala kurus. nee la demal toog si bunti kër gi. Mhm. feebar yëpp fekk la fa nga dee dem ni suul la yoof. Sénégalais noonu la gisee euh, euh, retraite or la la c'est pas ça c'est une c'est la fin d'une activité dans un service bien déterminé loolu foofu rek la. boo jëlee retraite boo demee retraite 60 ans mun nga liggéeyaat 10 ans. 15 20 mm. mun nga dem def leneen. mais pour au Sénégal bu ñu nee retraite rek nit yi bëgg a mel ni ku ku kii mais retraité c'est pas parce que tu es tu es parti à la retraite que euh, sa àdduna tukki na. mais naka la dëkk boo xam ne xale yi am trente ans. waaw mënuñu am liggéey ñuy yokkal ay nit ay âge de la retraite la. <coughs> waaw xam nga dans certains. est-ce que nekkul quelque chose de paradoxal. waaw aussi il faut reconnaître dans certains domaines, mm -hmm. par exemple au niveau de la justice, mhm. je pense qu'ils ont augmenté l'âge de la retraite de certains magistrats à mhm. Au niveau de la santé, je pense que né, ils ont pris euh, les médecins des de venants, ils ont à 65 ans. Mais il faut tenir compte aussi de la pénibilité. Parce que amna ay liggéeykat yoo xam ne mënuñu mhm. yenn liggéey mënuloo ko def au delà de yenn âge mënuloo ko. Mhm. parce que dafay nekk maanaam du domaine yëpp la concerné voilà du domaine la mën a concerné. lañ def voilà voilà certains mm. domaines la ñu daan mm. euh, bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi xam naa sonal naa la <laughs> gësam naa la comme que dañoo ànd gësam. <laughs> waaw tey de tey de vraiment Ndeye Comba. Mhm. vraiment lay remercier. parce que euh, pour la convivialité même de. Mhm. de l'accueil et puis. may ma lay remercier. Mm-hmm. Euh, di la wax rek ne man benn mot rek laa bëgg euh, terminer. Mm-hmm. réew mi ñun ñoo ko bokk. Mm-hmm. Sénégal le Sénégal appartient aux Sénégalais te keneen du ñëw fii liggéeyaluñu ko ñun rek ñoo ko mën a liggéeyal suñu bopp mais pour ñu liggéey Sénégal. il faut que ñun ñëpp ñu respecter loi jaar si yoon. gis nga liggéeykat. na respecté lu ko code du travail jox am na ay obligation na ko respecté employeur na respecté lu mu warloog liggéeykat bi hmm. su ko defee jàmm ne ñooy mais yow tu ne peux pas avoir la la l'argent du beurre et la fermière mënuloo nekk nag yore société hmm. charte bu bu tax nga am société ni tëral ko nga jël ay liggéeykat teg leen ba pare nga ne yow doo conformé wu di ja di jalgati seen ak ak yelef loolu ñun mënuñu ko nangu. en tout cas loolu moo ko indi mais les gens respectaient le code du travail les les les les termes même du code du travail. Mm. mais y aurait moins de conflits dans ce pays mais malheureusement nous avons affaire ici dans ce pays mais mais kon du sax du du gis nga. si mm-hmm. tout le monde respectait y a quelqu'un qui me un ami là qui me <laughs> chahutait. donc ma mm. ne benn bés mu ne ma mais Sissoko Mais si tout, tout se passait normalement, mm -hmm. est-ce qu'on aurait besoin même des syndicats dans ce pays-là Exactement. Mais malheureusement, les choses ne vont jamais se passer normalement, donc les syndicats vont rester ici. <laughs> voilà. Aïcha mi ngi noonu ñu koy mm. remercier bu baax a baax. Moussa Cissokho euh, ci disponibilité am nekk secrétaire général adjoint bu syndicat euh, de la fédération générale des travailleurs du Sénégal FG. Euh, TS bi nga xamante ni Sidya Ndiaye moo ko daal di jiite kon Moussa Sissoko ñu ngi koy remercier bu baax a baax euh, di remercier Mamadou Diawo Diallo bi nekkoon ci technique bi di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun euh, chaque samedi de 10h à 11h ba samedi prochain incha allah 10h jàpp 11h ci beneen émission beneen thème ak beneen invité émission bi mën ngeen a rattrapé wu ci suñu site internet di mi www.rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf ba samedi incha allah